client yi sonu nañu ñun chauffeur ño gëna sonu parce que ñun ñu ngi jappalante ñi jappante ak client yi yaakaar ñun ño bañe yegg te du jun yoon mo amul mécanicien yaangi né auto yaangi fess del ci mécanicien yi bo dëkkee ridis yor sa auto da ngay naan chauffeur bi sama auto bu mu daw ridis na daw yu toljaas bu ko mënul do ko jox na dam daw fenen mo la gëna muy daw ridis te pourtant fi ngay duggé auto dem ridis mais mais yoon mo amul am ñu benn moyen yoon mo amul am ñu yoon jafe-jafe bobu la ñu am yoon amuñu yoon amuñu sécurité fii dafa lëndëm guddi boo fi daw lumière oto rek ngay gis à part lumière oto fii benn lumière amu fi chaque jour agression en pagaille fii Kër Mbaye Fall. am na brigade mais brigade moom dafa mel ni brigade amu fii loolu mën naa ko wax di nga dox pendant un mois doo daje benn alkaati muy def patrouille vingt quatre heures sur vingt quatre mun nga koo dox Kër Mbaye Fall fii doo daje benn patrouille patrouille boo dajeeg moom doo doo dajewaat moom pièce lañ laaj nga dem te léegi malfaiteurs yi sa yor nañu ay pièces. ñuy def sa yor nañu ay pièces dañuy miné seen matériel fële waaw ñëw di dox ci dëkk bu ñu gisee lu mool ñu fobeere ko